donc lu ñu war a xaar ci président du euh, CNG bu bees bi mooy rigueur donc yaakaar naa ne xam na fu mu jógee xam na laam il est dans la lutte donc y a des boo xam ne war na ko mën a jël. non mbégte la parce que tey ministre bi mun a mobiliser képp ku nekk acteur de la lutte sénégalaise mu avant muy taan mu du leen consulter benn par benn ku nekk wax xalaatam loolu c'est très fort. donc yaakaar naa ne loolu mosul am mënoon na tëju ci bureau am rek jël kayitam nu mu yaakaar rek mu nommé leen mais dafa woo ci acteurs de la lutte benn par benn les journalistes les communicateurs traditionnels les promoteurs ah les présidents des anciens lutteurs tout est constant donc le lutteurs en activité c'est très important mu jël xalaat yooyu yëpp réunir réunir leen foofu la jëlee décision pour nommer ay nit donc maa ngi koy sant bu baax a baax confiance bu muy am nommément vice-président chargé de la lutte traditionnelle yàlla jox ma doole yàlla xelal ma ba fu ma bëgg làmb ji rek parce que làmb ji suma deret la nekk ci loolu laa commencé donc je pense que maa ngi ñaan yàlla yàlla jàppale ma pour ma mën a réussir suma mission. gis bi dafa nekk mission bu xaw a délicate tamit parce que du bu doy waar du mission bu délicat je pense que man fu ma toll ci làmb amul lu ma mënul nekk ci làmb amul lu ma mënul doxul ci làmb ndax dama ko dund bu ma nekkee xale. maggee ko bi nekk dara ci am ci njëriñ aussi donc aujourd'hui loolu di kaw làmb fu mu toll woon te nekku moon président làmb daf doon bu na bugg a toj stade Iba a Diop lu traditionnel su ma wàccee adduna bi yëpp déggal ma ñu ñu calme sakatuma nag ma nekk foofu pour dox loolu mission boobu gis loo ne milieu làmb dafa bëri ay coow dafa bëri ay divergence parce que même si promoteurs yi ànduñu mbëri bëri nañu ay clan extra extra est-ce que loolu c'est la lutte lamb su amul coow du neex lamb il faut mu am coow mu mun a neex l'essentiel soorante ñaanante loolu peut-être moom la ñu war a def mais lamb il faut mu am coow. mais loolu nga wax noonu dafa nekk ci milieu teg tënkante ci lamb sax dafa war a am coow. mbër tënk beneen mbër dafa war a am coow on doit revenir à la tradition la réalité mbër dugg si ci lamb samp béjjënam. supporters yi yuuxu fole ou bien joolaay takk seen kii ak euh, garab yi di dox di waaxu si di woy mbër séeréer yi yor seen jaaj yi ñëw sànni ko ça doit revenir la transition doit revenir. non bisu Alioune Sarr toujours du ma ko remercier nit bu dal la comme ni ma leen ko waxee toujours il n'est pas dessus il est très content dégg na remerciement yi làmb wax ci moom dégg na lu ministre bi ci moom kon loolu la doy du doyati je vous remercie yéen journalistes aussi yéen communicateurs traditionnels yi kenn mënu leen fay parce que lamb su développé aujourd'hui ba ñu egsi fii a liggéey loolu donc toujours ma ko waxee considération de fi war a nekk parce que yéen a jën seen ñàkk kenn du leen jox dara ngeen di daw di joxe information guddi ak bëccëg je pense que le ministre des sports war na leen jox seen place